bis bu rëy day laaj waajtaay wu rëy ba tax na bis bi ñu jagleel Cheikh Amadou Fadal moom Serigne Touba Cheikhul Khadim di màggalu Kazu Rajab ñu di ko waajal nag amal benn CLD bu mag ci mairie bu Touba ngir waxtaan ci lépp loo xamante ne bii ay matuwaay la yu këru liggéeyukaay yi bootu ci nguur gu Sénégal war a jël ñu mën ko jël na mu waree. loolu nag am ci njiitul sous préfet bi nga xam ne moo jiite arrondissement bu Ndaam ak kilifa diine yi nga xam ne ñoo fi teewaloon njabootu Cheikh Amadou Fadal ci njiitul sëriñ Xabaan Mbàkke Falilu feggoon ak sëriñ Ahmadou Badawi ak yeneen kilifa diine waaye ci teewaay maire bu Touba. ndaje bi nag kii di préfet bi daal di dalal xel bu baax a baax ci matuwaay yi nga xamante ne bi war nañu ko jël ngir bis bee mën a am ci anam yu mucc ayib. jamono amaat aussi beneen signification bu am solo bu rëy ci wàllu diine bi nga xamante ne bi moo ñu boole ñun ñëpp muy diine lislaam kon bu ñu yàlla dogalee ñu ci ñi nga xamante ne bi lu mu néew néew néew néew dina am luñ ci jëf yaakaar naa ne loolu sant yàlla gënu koo gënu koo koy ndax bés bi lu ne àttan na ko comme ni ko maire waxe kon nag sëñ bi ñoo ko déggandoo li nga xamante ni bii mooy bëgg-bëggu comité d'organisation bi ci fànn yépp yaakaar naa ne réunion bi amul benn chef de service bu ko bu ko wuute maanaam service yi nga xamante ne bii ciblé woon nañ leen ñoom ñépp ci waajtaayu bés bi ñépp teew nañu comme ni ñu teewee woon daaw dégg nga ñoom ñépp seen engagement yaakaar naa ne muy ci wàllu wérgu yaram muy ci wàllu service di d'hygiène ci wàllu kaaraange jàpp ndox mi assainissement bi ak environnement beeg Senelec ak yëpp ak euh, li nga xamante ne bi mooy wàllu UCG te ñu koy woowee Sonaged lépp ñoom ñëpp fësal nañ seen yéene ci li nga xamante ne bi mooy taxawaayu état bi nga xamante ne bi moom la war a am ci bés bi nga xamante ne bi mooy bésub Serigne Fallou bi Cheikh Modou nag di ñaareelu xalifa Serigne Touba am dayo bu mag ci lislaam rawatina itam yoonu murit njabootam nag bég bu baax ci matuwaay yi nga xamante ne bi jël nañu ko te di ci am yaakaar waaye tamit nag di ñu fàttali solo si nga xamante ne bii moo di solos bis bii. kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen xamal ne it ñun ñoom lañuy jàppale ndax askan wi leen fi moom ñoo moo leen fi teg askan wi lañ fi nekkal kon lu ñu def lu toll nii kenn ku ci ne xam la ci sa wàll nga taxaw ca nag. danañ la sant ndax dañoo wax ne wëreesut a sant ku def li ko war waaye am ñu ne ki ñu war a sant mooy ku def li ko war la shukra ala waajib waaye am ñu ne laa shukra illa ala waajib ki def li ko war kooku lañ war a sant di sant itam mboolem ñi nga xam ne ñooy jàpp ci liggéey bi ci turu Serigne Xabaan mu jëlee kili ci ko ci ay kilifaam muy njabootug Cheikh Mamadou Fadil njabootug Cheikh Mamadou Fadil nag Serigne Abdoul Ahad ka wax na ko léegi bu ñu ko waxee mooy bindeef yi mooy bindeef yi mooy jullit yi mooy murid yi ndax moom dafa seeyoon ci biir kër Cheikhul Khadim radiyallahu anhu wax ne du ma doon doom du bëgg a doon baayam du ma taalibe bu bëgg ñu seexal ko dama bëgg rek fu sëñ bi jëmee fu sëñ bi jëm jëmee ma fa sëriñ bi nag ku ne xam na ne mooy doonay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax ba mu jógee la wax ne man li ma tax a jóg rek mooy xeeñtu buñ dee màggal jataay màggalu Cheikh Mahamadul Fadel rek ñëpp ko bokk waaye nag mu doon màggal boo xam tam dafa xewaat ci bis boo xam ne lislaam yëpp moo ko ñoo ko bokk mooy bis bi nga xam ne ci la borom bi subhaanahu wa taala rañaale woon ku tedd ka rañaan mooy dox guddi jële ko masjidul xaraam yóbbu ko masjidul aqsa ca fàttali nag màggalu kazu rajab nag ñi ngi koy amal at mu jot guddik ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru rajab di fàttaliku feeñuk jamono moo dul Fadal bi nga xamante ne bii ba nga feeñoon jamono ci dëkk bu ñuy wax Daaru Salaam te Serigne Touba sancoon ko waaye tamit mu feeñ fa jamono ci atum 1886 moom ak ki nga xam ne moo njëkk a wutu Serigne Touba di Cheikh Amadou Moustapha atum ren itam ñu koy amal ci ndigalu Serigne Abol Baraka mi nga xam ne moo nekk ci bopp njaboot gi waaye gannaaw ba mu jotee ndigal itam ci magam kilifaam sëriñam di Cheikh Amadou Mountakha xalifa général kulu yàlla fi yàgg lool ci ànd ak